salaatul fatiha ñu sërxal ci aajo yëpp xiir gi am na lu ci mat fatiha benn préfat fatiha xiir gi am na lu ci mat bàyyi nañu xaswaa bàyyi nañ leen a nos ba Moustapha ca kaw mi dinaa ñu ne xeer tabale yaa ngi tëgg ñaam doole ngeen fara tàndarma ñii di tuur foloor yi ñii di génnee yëf ci piis di sànni ngir mbégte waa ji ne na keroog ba Moustapha duggee Midina dafa mel ni làmpa lañu taal làmpa yooya mënatu la fay guddeeg bëccëg ba keroog ba yàlla dogalee mu ñibbi àjjana ci daa ji Malick ne giléem ngay tempal boppam di tempal boppam atatana waxa atatana waxa ba mu yësal boppam baabal masjidi booy firi tey da nga naan ci bunti jàkka jàkk booy firi ngir keroog da nga naan fa nara doon bunti jàkka jàkk bu dee keroog da nga naan giléem gaa nga yës fa nara doon bunti jàkka jàkk bu dee kii gi la nag nga ne ci bunti jàkka jàkk ba mu yësee wal badru bul way ma àlla anha giléem gaa ngi ci suuf patron yaa ngi yàq góor gi wàcc yàkkamti mu wàcc ba ñu jël ko ku sonnaa ka yàkkamti war a yàkkamtee cëppeelu ba ñu fat la waaye alaaji Malik ne wal badru sanga ba ma àlla wàccul anha gannaaw yi giléem mu ne tekk rek giléem ñetti islam bu doolee ñañ bi ci suuf doo tànk yi ci suuf simplement gis gi àggul alaaji Maalik nit atatana waxa baabal masjid mu yées ca bunti jàkka ja wal badru Moustapha ma àlla anha wàccul ne tekk tabale yi tëgg giléem ngi roon ni ko ci ginnaaw Moustapha dëju seen tàkk bi Ababacar xool ko mu xool ko Maodo ne suma xat la sabat giléem gi ne ñaaj bit jóga saarat saarat saarat walam tanha wa rajaat wa tanawaxa saaniyan ba tey wal badru ma allahna laa ilaha illa allah hawla wala ilahi giléem gi ne ñaddet doxi jeego fuun fuun fuun retourne dellu si waat fuun tegaat ñañ ba fa mu ko tegoon bu jëkk ci daaji Malik ne na way bi dafa riis wal badru ma àlla anha nabi bañ na du way premièrement suma xat ba sabaat mu tëbaat mu tëbaat boobu dafa way rek ne saarat walam tanha asaf yëpp ne wal ji jaxawu lam yuxmi te saarat walam tanha wa rajaat wa tanawaqat wal jajaawu lam yuxmi waaw foofu nag talla fa fat xaltaha tabale yi tëgg mu roog nabi ci kaw nabi wàccul alaaji maa ngi ne giléem gi jógul bi yoon waaye dérancé ne oom yi la dóor mu dóor ñaari oom yi dóor ñaari oom yi rek kii la arrière talla fa fat xaltaha xaswa rajaata dee rek kii la arrière ndànk ndànk ne bem ci kaw rek di ànd ak moom di jaayu tabale yaa ngi tëgg gol yaa ngi xaar Moustapha defaraat kër yi am na ci jigéen ñu wàccul ñu ngi ci seen kaw taax yi di yëndoo gune yi leer gaa ngi jàpp kaw jàpp suuf giléem gi alaaji Malik ne mu reculer arrière ba tegaat ñaj ba fa mu ko tegaan muy troisième naka la faa teg nag talaxlaat talaxlaat ba mu randamtalee nag foog mu randamtal ne noos los wi ba mu sës ko mu ne ko ñaare tàlli li cax geen ba nabi doon a xam ne àgg na mu ne talaxlaat ndeysaan moom xaswaa a talaxlaat ba nga xamee ba nga xamee ne dellu na gannaaw mu bañ na du wàcc mu yës mu bañ na mu wàcc mu fab los wi tàllal randamtal wi cax geen bi alaaji Malik ne Moustapha door a xam ne affaire bi sis naxaat talaxlaxat nag Maodo ngi wax ne boobu baat dëxiil la dëxiil mooy baat bu ñu employé ci làkk te dëkku ci su ma leen bàyyeeg baat bi daf leen di lijjal kon ma wax leen parce que ñaari moo la yu ñu takraaru deux fois taa tombe ñetti moo la yu ñu tam takraaru deux fois taa tombe laam xadam dellu ñetti taa tombe laam xadam dellu muy ta lax laxat ta lë laxat taa tombe laam adam dellu taa tombe laam adam dellu alaaji maa ngi ne am na ñeenti jànge wa qaddam na laama bu la neexee jiitalal laam yi ne ta lë laxat aw aqiru laam yi mën naa bootu ci ginnaaw adam dellu ya nga ne ta xal xalaat moo jaman bu la neexee nga tomba ne ta xal xalaat wala nga tomba ne ta lax laxat xaw xaw melal wala nga yee nga bañ a tomba muy ta xal xalaat ta lax laxat baax na ta xal xalaat baax na ta xal xalaat baax na ta lax laxatit baax na wa qadima laami aw aqiru muhjamal aw mumilan xaala saa alaaji maa ngi ne benn benn benn benn jàngkat jàngkat bu ñuy wax xala bi moo bind loolu moo ne am na ñeente jàng ba nga xamee ne nag gileen nga àggal na la dóor Ababacar dee ko ne ko unal muhaal insaa xaalixuna fii lañ ñu sant waaj ñu ne nag gileen gi yës bu njëkk ga def na ne bi fay sa kër ne bi bañ na di wàcc mu wër ñu it yësaat ne ko fii doon sa bàmmeel premier yës gi kër gaa ngii la mu dig digal mu dellu si ne ko fay bàmmeel bi it foofa lañ ko njàpp moom fa duggaale la ñuy ramoo bés penc du ko yeesal sax du ko sax yeesal Moustapha ngi nii wàcce na nag dëkk baa ngi ko wër ñee ngee yëndu ñii di moo seen morom ñii yuqantalu dañ ko daan dégg rek sopp ko ñu soow ndeysaan waxtaan ba fatu jàpp ku ne téye ci loxo bi ne ko suma kër ku ne téye sa loxo bi ne ko suma kër mu ne gees na an sama teg ñu ne ko abdi ayooba day yóbbu na ko mu ne a rusulumaa raali góor ak tege may ànd ndax ndax ndax yoon day bette su ma dalee ci kër gi sama teg ne ci kër gële ñu ñu yuuxu njël ne takkalaan na may def waaw waaja nax na leen góor ak tege may ànd an sama teg bi gaa yi xëccoo dal abu ayaba na cop kat tegga daw dugg yóbbu kër moo muus alaaji malik ne ba indoo li xew téwér mooy nasala jëkka naa fanaan al muxtaaru mustafa an na abi ayoba ci kër ku ñuy wax abi ayoba ñu ne moo alaaji malik lu mu bokk ak moom ak mu tax mu dal fa mu ne amili raxli moo fa boon tegga moo fa boon tegg mustafa dama moom ci kër kër ëtt fa ne ne ba ci ëtt bi léegi di waxtaan nga bëgg ci kër gaa ngi koy yëngu ñu xëy yëf ci biir kër gaa ngi taxaw ci bunt bi ci daa ji Malick nag ne am na lu mu discuter avant mu monter ak góor gi ci ëtt ba discussion bu yàgg maa ne xam naa la ñu wax xam naa fa ñu terminé ñu ne wax nu ko si balaa guddi mu ne laan نسوها ضوها بعد من بطلنا وتقول هل من مزيد وصفت الجنة للمتقين غير بعيد من هذا ما تعد لكل عواد حذف من قسي الرحمن بالخيب وجاء بقلب منيب ادخلوه ذلك يوم القلوب بنجان دمي بتي بير بالله لهم فيها ما يسعون لولين نيخن تي بير su jeexee nag wala day naan masiidum du jeex sax waaye bu jeexee it wala day naan masiid du jeex ma dem de yont yàlla Muhammad waa jooju jël tegam këram la jëkk a fanaan waaye kat ci saa yi waaye bu dee baatin këram la jëkk a fanaan kër boppam la fanaan tubaab la awal moo sañce Medinatul Munawwara moo jëkk liggéey cité moo doon def tour de monde traversé na kaaba gi rey na fa lu takku yàlla Medinatul Munawwara naroon a doyadal kaaba gi rappal ay mbaar ya mu fekkoon Medina mu ànd ak ku am kas kooka ne ko néeg bu mag bale nga doon bëgg a yàq te ñu wax la fooraayam nga teral ka ki tax ñu liggéey néeg bi fii lay mujje mooy daaru ijirtin mu ne aha ñu ne waaw mu daal di joxe ordre ñu tànta quatre cent ñeenti téeméer ci muhandis ñoo xam ne ku ci nekk yaa ngi nekk entrepreneur mu joxe ah ne nañ fi tabax quatre cent cité ñu tabax fa quatre cent cité mu tànn ci gawar gi quatre cent yu mën a jàng ne leen resté wuy si révitaille leen lu doy goreel lu bari quatre cent femmes may leen ko ku ne mu may la ñaari jaam yu jigéen tabax fa nag kër gu rëy mu nekk ci diggi sete ba mu def kër gu turu boppam dëkkal ka kacaraw ñu ko kii Moustapha mi ñu wax laa ko tabaxal fa ndareet aw kii bind sa ñaari way ne ko maa ngi laa yëgal ne dugg naa ci sa diina maa la jëkk a gëm doonte dajewulu su sa diine ji lawoon ba fekk may dund maay doon sa secrétaire doon sa doomi day walla xiraa ña ngay ramu nag ma ca fàtte fàttali ko fab leetar ba def ko ci enveloppe ñu fab enveloppe ba def ko ci enveloppe def ko ci cartable buyaade ko wurus mu ne da leen ko donnante di ko donnante bu Moustapha ñëwee ngeen joxal ma ko kër googa ñu liggéeyoon keroog ba lebi dugg Medina aboo ayo boo ko moom moo tax ba mu toogee balal ni jàmm sante mag ñi déej na leetar ba ñu ne leetar ba ñu ne leetar ba ñu ne leetar ba ñu ootante oo xale bu ñu aboo yaxalaa ni nga gise bu ñuy réception kilifa fëlóor ba dañuy tànn ki rafet mu jébbal ko ko ñu ne aboo yaxalaa yaa jébbale leetar bi ne bee nga ferankalaayu ak taaram bu réy ba bos ba ne teel di ñëw mu muuñ na ca kaw jaa aboo yaxalaa وما هو براءة الطبعة الأولى أبو يا نجي نيو يور ليتر وبا جوجا نيو الطبعة الأولى تكرا بوم بين ليتر بي سيني كو كرو بين بي جودو جوني ات لا يو تاغول وير تاغول اور تاغول بيس كون كاج مصطفى حقيقة كرو بوكم لا دال درو كر أبي أيوب فإنه نسل المختار عند أبي أيوب آمل رحل المصطفى رب العالمين ورسول رب العالمين عايز المكان دقن قولوا أول ما بغير ما تمكن إلا تنجز مركبة لا تبار جاي محمد والله خير من محمد أجلني ومدام جزرتي والأولاد ومدى الكلام والبيني ومدى الكلام والبين عزيم كما ما أغلى قبلنا بدر جل كيلين إن أرسلناك سائرا ومبشرا ونصيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وعذرا إن العالمين والسلام على نبينا عند المكارم دقن قولوا moo daqoon ci góor ñëpp ey ey moo mënoon jàmbaar yi moo man jàmbaar yi laa wax Moustapha premier moo yëg moo wa moo moo kawe yonent ya li yàlla bind doomu aadama ci gën amul benn côté benn côté boo koy taggee mu manqué fenn ma ne ngeen gi du gën gu ndaw nangul ko mooy aynu rahmati rabbaniyati mooy aynu rahmati rabbaniyati mooy talati alxaqi bilxaqi Moustapha mooy albaqi lestaa te mu ko defee albaqi lestaa mu defe ko bi musuuni arbaxi ba mu sottee ba gooral maali atan li kulli mutaxaaradin mutaxaaradin moo xam min al buhuuri la wala awaani buhuuri mul qulubul aarifiina awaani mooy qulubul awliyaay حقيقة محمدية أجس الأقوان أن كن معرفتي نح أين الرحمة بقول ساعة الرحمة بقول الحق بالحق بقول ثلاث الحق بالحق ndax am na ci lawliyaaw yi ñoo xam ne seen may yëpp mooy mën a gis jëmmi Moustapha waaye xol ba joti wu ñu ca dee am ñu xeex ba mën a joti gis xol ba waaye aqiqatan nag xel ma mënuñ caa jot am ñu yem ko bu waaye ruuga deesu ko gis moo tax bay sëñ Tuuba bu kenn woy wax ne bay sëñ Tuuba woy na bu yàgg ne haqiqatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf na maqamatu xayri alxalqi an xayri rabbihi مخيبة فلتقرأ عنا سورة النجم باي سين تبان مقامات خير الخلق الخير في بملا ولندي خير جي جك جي ابلانك غني تومبلا الخير ربي جل بكالي خير ñaarel gi ay ndimenti la guñu tombala خير ربي بملا ولندي fo prononciation bi outé mba duñu xam li ngay wax الخير ربي مقامات غير الخلق عن غير ربه جملة جوجو مبتدا لا waaye nag dañuy wax ne saraf ak jaar ak majruur gellawari naxwu lañu daañu tabbi diggante mubtada xabaar dinañu tabbi diggante fiil ak faayil si siif ak mawsuuf dañ fa tabbi nde maqaamaatu xayril xalqi muxayabatun rekk la woon waaye ba mu ne maqaamaatu xayril xalqi ñu ne en mbàkke dafa jaajuwaat ne en xayri rabbihi doora wax ne muxayabatun faltaqra anna suurata najmi mën a faagoogu jeex nañu jeex lu ko dugal ci wooy wi xamuñu ko jawaab bi sarta soosu xool naa wooy wi gisuma ko ndekete yoo góor gi def ko asar maqaamaatu xayri alxalqi an xayri rabbi muxayabatun in ankarta salika fal taqra anna surata najmi boo weddee li ma la wax jàngal alquran jàngal ci xay suuf bi juróom benn li isib ngay jànga
ñaareeli saar wa ngay jàng انقسام مرتب أي همة saar wi tiim qad samia arrahmaanu انقسام مرتب أي همة moo di wa najma إمام انقسام مرتب أي همة إلى ما دل صاحبكم وما غوى إمام مرتب أي همة وما ينطق عن الهوى إمام انقسام مرتب أي همة إن هو إلا وحي يوحى إمام انقسام مرتب أي همة علمه شديد القوى انقسام مرتب أي همة فاستوى بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ما هو إلى عبدي ما هو بالله ما كسب الفوج وما رحى إنما يرقى ولدنا من الخلق إلى الحق دنا من الخلق إلى الحق ba ñu déeyee ba noppi fatadalla min alxaq ila alxalq Moustapha dalla min alxalq ila alxaq ba ñu noppee fatadalla min alxaq ila alxalq faawee la bi ma waa am nañu delloo abdi ji Moustapha am nañu ko delloo Jibril mbooleem turi jaam yi abdoo ci gën a foor yàlla employé na ko ci alquran waaye mosul nangoo ooye nabi abdu mu lu mu def ko fekk mu ne ci biir service yaa ayyuha rusul yaa ayyuha musabil yaa ayyuha mudassir يا شيخ تعال يا يب آية لكوكو وجمن بوك سيمون إلى عبده بويري جناغو موي لي دي سيرفيس دي غرك لمام يالا وقفه دفنا وإنه لما قام عبد الله foofu julli gaa tax mu employé ab duga yemul foofu kat am na leneen lu mu wax am na ne na am na fu mu tuddeeti abdu tabaraka la si an salaala abdihi loolu leçon ba tax foray alquran jamono bu tuddee Moustapha Abdou rek saaya alil secret رحمة رحمة ربي عبدو سكري أسنادي ربو ما تخلي اللي بند بين لين دفي اكسما دوم آدم ما تيجن ñu bo- dawal leen tànn leen cent vingt quatre mille raw cent vingt quatre mille yooyu lañ segga dawal 313 raw ci 313 yooyu ñu sa gadawaloon 5 raw ci 5 yooyu la ñu dawal Moustapha raw leen kon mooy première yi première yi première yi déggal ba El Hadj Malick mu mën a jàng mi rek dama ne la amul benn côté booy tàggane bi ba foofa manqué. gisala li wax ci nuunu yëbi ci ngay dégg ne Maodo ma bari xam-xam wax ne ci mbiir nuunu ya ne waxul xurayse waxul arabin tasaddax